Assalamualaikum mbokk internet si ko TV comme ni ñu koy faral defee rek ñu ngi toog ak doomu Yaawa Rasoul tay nak ñu koy tak nan ko heureux ménage nan ko félicitation tay ñun toog ak jege ñalem xaritam rakam domam nuy nañ la. ma ngi leen di fay. tur bi nan la. Binta. Binta borom complexe na. <laughs> borom complexe Yaawa Rasoul. Yaawa Rasoul <laughs> yow mom yaa war wax ci Yaawa deug la. <laughs> témoignage nga mëna wax ci yaaw lañ mën a wax ci moom bëri na parce que yaakaar naa ne du hasard ma jël lu tooy ne place tuddee ko ko. Mm-hmm. nit ku baax la nit ku oyof la tey bu ma tollee fii yaakaar naa ne loxo mu ngi ci biir parce que nit ku baax ku xam dina la ko àndil jàpp ci liggéey bi del def nii del def nii te loolu yombatul ci réew mi ñu nekk en tant que jigéen ñu ngi koy ñaanal sëyam bi yàlla na barkeel lépp lu ci ragal yàlla bu mu ko gis parce que nit ku baax la vraiment. Mm-hmm. yow yaawa depuis kañ ngeen xamante euh, depuis 2017 lañ xamante te booba tey dara ñaawul wax dëgg fa neex yàlla mu nekk nit koo xamante ne macha allah yaawa xol yi fees na fees boo xamante ni parce que ñëpp a kontaan ba mënuñu wax mais moom xam na li nekk ci xol yi xam na li nekk ci xol yi bu baax parce que li ñu sekk bari na li ngeen sekk bari na ñun nekk si milieu sobise coow li bari loolu yaawa am góor gu ñëw jox 10 millions d'après Fatima lu mu wax. deug <laughs> la yaaw mérité no lepp mérité no lepp vraiment parce que toog na fi ko tek bobu tay dara ñaawul dégguñu ko ci dara lu ñu xari té mënon na def comme ay moroomam jël appartement wam nekk kuko ko neex di def lu ko neex mais dafa jël appartement wam jël rakam tek ci wétam ci nak ndigal wa ay wajuram kon lool rek yaakaar naa ni finde bu la que ne nit ku am fulla la ku am fayda la ku am dignité ci la. Mhm. Fatima muy rakam ñom ñaan ñu ma yaawa du parce que soutien de famille tout ça di def ay témoignages bu rafet yow tamit di ko euh, salon tudé ko complexe yaawa kon yow am fo foo ngeen ba nga salon. Mhm. parce que damay wax tout le temps les mom référence la. parce que lu waay di ut ci lu baax rek boo ko xoolee ci moom gis ko téye na famem téye yaayam téye papam téye ay raqam mhm. kon kooku référence la ci réew mi ñu nekk te yombul ci nga nekk ci milieu showbiz di gestu sa famille mhm. kon nit la koo xamante ne mention spéciale daal vraiment mention spéciale euh, yaayam témoignage ko témoigné ko ba ba ba dem mhm. si sëy tout yow lan nga si wax <laughs> waaw dëgg fa de yàlla suñu yaay ji ñu ngi koy ñaanal fi mu tëdd tey xam naa ne xolam sedd na fi mu tëdd tey bu sañoon day fekkee bés bi mais nag euh, lu yàlla dogal loolu moo gën fi ko tegoon ba tey jugu fa li ñuy wax ne tey bu yaayam yeewu woon du defaraat toogaayam mm-hmm. loolu moo ci nekk bu yaayam yeewu woon du defaraat toogaayam. Mm-hmm. ku ñuy wax naan moo ko takk ñii naan joueur la ñii naan basketteur la yow kan moo ko takk. <laughs> Ah, ah booba tey ñu ngi wax de. mais bàyyi ñu denc secret bi rek loxo bi daal comme ni ko Fatima waxee ne loxo bi mu ngi ci bal bi noonu la demee. ah kon kay basketteur la. <laughs> ah mais bal bi du basketteur rek ñoo koy yore bal bi ñu koy yor bari na ah, ah bal bi daal ñu koy yor bari na bal bi ñu koy sànnante. Eh. bëri na du basketteur yi kese de bàyyi leen ñu may leen loolu rek. Eh. Mhm. mën nañ ko fay xaar léegi si kanam. ah incha allah. <laughs> mun ngeen maa mu ngi fi de. ah waaw. papa yu baax wax dëgg fa neex yàlla ni ñu yaawoo bëggee noonu la ñu bëggee respecté ñu jox ñu cër fu mu ñu gis foo kafre kontaan téye nañu comme ni ñu jabaram téye kon dañ leen di ñaanal rek yàlla may leen jabar gu barkeel lépp lu ñuy séntu ci sëy bi ñu gis ko. Mhm. lan ngay conseiller yaawa. yaaw dañ koy dolli rek dañ koy dolli rek mu gën a toog toogaayam bi mu toogoon. Mhm. parce que ku ko xam-xam ne nit la ku mën a toppatoo nit. parce que ki ko takk tey day toog di ko seede ñu koy fekkee mu ne nit ku mun a toppatoo nit la kon loolu bu ko waxee ñun dañ koy gëm suñu xel day dal ci moom muy témoigner témoignage yoo xamante ni ci moom suñu xel dal na vraiment hmm. mhm, suñu xel dal na suñu xel dal na mhm. même si suñ ko fi jëlee yóbbu ko même buñ ko yóbboo suñu xel dal na wax dëgg fa ne su suñu xel dal na parce que yombul nga nekk góor pendant de années mu témoigner la témoignage yoo xamante ni takku la kon mhm. li muy def dëgg la ci moom nañ leen bàyyi rek euh, mbëggeel gi sax saawaan baawaan saawaan baawaan mhm. mais nit ñu am tur de dafa dafa nax dañoo naqaree sëyal cest gis nañ fi yu bëri ak ñoo xam ne dañuy seen seen seen sëy bi si biir internet beeg yooyu yooyu est-ce que lan ngeen lan nga leen conseillé en tant que euh, yaawa euh, la li mu def rek wane na ne sëy du lu ñu war a exposé ci biti gisuñu fuñ fu mu génnee ni dañ koy tax vidéowul liñ ko may vidéowul dara ba tey euh, kumpa mu ngi rey nit ñi parce que kenn xamalu ko dara pour man sëy lépp kumpa la war a nekk mais lu ñu exposé mais lépp kumpa la mais nee nañ joxe nañ ko may nañ ko kër waaw loolu c'est vrai parce que am na yoo xamante ne peut-être mënul nëbbu parce que teraanga tamit bët àdduna bët non mais cat dafa gaaw te làmmiñ bi dafa doy waar 10 millions yi c'est vrai lépp luñ ci wax c'est vrai mais nag euh, nañ bàyyi mu bañ a visible rek. Mm-hmm. Fatima nee na ma oto bi si lay dugg di dem sport. <laughs> ñun ñëpp ci la dugg <laughs> bu ñuy dem sport ñu yóbbu fu ñuy dem ñu yóbbu est-ce que nii nii sommes duñ ci dugg dem ci xew mi mun naa ne de. lépp mun ne nañu dugg ci oto bi dem ci xew mi. ana Sidi Diop. Sidi mu ngi fi. kooku suñu mën nañ kaa xaar sommes si si mariage ah bien sûr parce que magu yaawa la. c'est normal mook papa sam ben lañ kon c'est normal mu ñew ci xew bi koy xaar feeling pat borom film te pat borom ak lan assurance pat permis pat sa papa di dégg na nga ndam del lañ ko wat way ñii bu ma leen jappé dégg nga ndel bi dégg na ndel bi de way ñi ci wax ñepp xaar leen tok leen xaar seen réponse ak ñew waaw di ko encourage bu baax mom tamit sidi Diop waaw nek xalé bo xamni tamit mu ngi bay waram si ci musique sénégalais dem na fi bëlik démo Ndiaye Zénith toj ko def guichet fermé ñu ngi koy encouragé bu baax di ko wax erreur mënul ñàkk si àdduna mais bu mu amaat quoi parce que moom référence la moom idole la moom dafa njaboote mm-hmm. euh, Sidi nit ku baax la parce que tey buñ ko bàyyee sax amaana bu doon keneen duñ ko bàyyi mm-hmm. mais procureur moo tax a wax ak boppam seede ko ni Sidi nit ku yaru la mm-hmm. nit ku mën a assumer ay responsabilités parce que tey bu ko neexoon dem wax leneen wala mu corrompre tey ki ko jàpp wan ko ne ko man artiste la mais bi ñu ko jàppee dafa taxaw ni carrément def leen li yoon wax kon kooku yaakaar naa citoyen la à part star bu mu nekk bu ko neexoon wane ne star la parce que star la ci réew mi ñu nekk nag kenn mënatu ko bañ foo ni Sidi àddina wërngal këpp ñëpp a ko xam kon kooku star la mais bu ko neexoon jaay ko mais jaay ko dafa wane ne citoyen la mais ah seen papa tamit yéen lan ngeen koy wax seen papa moom moo jël yaa awa lan ngeen koy wax <laughs> ah ah suñ papa ñu koy dénkaat rek parce que suñu xel dal na ci moom war nañu loo xamante ne tey tiituñu ragaluñu mais dañ lay dénkaat rek wax la ne la princesse lañ la jox téyel ñu ko ni nga ko war a téye te suñu xel dal na ci loolu mais mais mais kenn moo la defal nii lan nga sañ sa nii lii fi jaar complexe bi rek Amina jaar ci bopp bi Lam daanaan jaar fii ci sañse bi mhm. waaw sañse bi daal di mat. ku la bëgg a na lay def. waaw ku ma bëgg a maa ngi noo foire ci côté juma bi booy dem Kër Waali numéro bi di 77 407 30 73. ci Waali Seck bi waaw. booy dem Kër Waali rek salon moom nii nga koy rombee ku nekk ci kaw boom yaa ngi jàkkaarloo complexe bi vraiment ma am ay yu baax yu fidèle ci man. waaw parce que yaa ku mu for rek andi na ko kon loolu moom ñu ngi ko ci sant di ko gërëm vraiment. c'est mot de la fin ngay tëjee. Euh, di ñaan ci senegal jàmm jàmm ji gën a sax gën a yokk hmm. waa parce que jamono bi ñu toll réew mi xaw na jaxasoo mais dañuy ñaan rek liggéey bi fii nitu daa diine yi liggéey yàlla bu mu naax saay hmm. mu nekk. Euh, li bo xamantene day day tuuruwaat ci Sénégal Wa jamm ji sax. jamm ji sax. Mm-hmm. merci beaucoup. merci.